halan bikum meeri bu ndakaaru nar naa tàng jër xiiroo ŋaayoo ba xëccoo ba xeex bu métti fa nar am ndax tey la ñuy tabbu maire bu bees ka nar a wutu Xalifa Sàll enquête yéen a kaay ñu ko xamal yaaw seetal ña waroon a juboo tànn samp benn candidat woteel ko juboo wu ñu maanaam taxawu ndakaaru su am war di ni samp na ndëndëm Banda Diop mais moom it teg na ndëndëm léegi nag Benno Bokk Yaakaar ñooy arbitré vox populi na ko bu ko wàññi léegi nekkatu ñaari candidat xam na ñetteel bu wàll yaan ci géew bi du kenn ku may Moussa Sy ñëw na jaxase carte ga ndax kenn foogu toon ko l'observateur na kon nag guerre ni ngi di xam tànn ki war a jiite maire bu ndakaaru tey du yom de le quotidien yéen a kaay ne Moussa Sy nag wax na lu leer nañ ñi nee na candidat la li mbëtt la bar waaye nag jëluma raw gàddu gi maanaam fañ maa mbuqi su boobaa damay tekki sama ndomba tànk ci ñaareelu adjoint au maire bi Moussa Seye ko wax de mu yokk ci ne bu nekkee maire bu Ndakaaru dana ngénte xab mbedd tuddee ko Mbay Njaay enquête yéen a kaay ne ma wax leen li waral xëccoo bi pour jiite maire bu Ndakaaru dafa xam lu nekk ca biir lu ëpp juróom fukki milliards moo ca ne moo tax gars yi ku nekk na maa koy jiite te tuutee ci des su am Wardini ak Banda a jàkkaarloo bokk moo tax yi fi nar a métti Amadou Sène ñaa ne buñ deful ndànk nag gouvernement bi mën na faa def ñoom ñu si que yéen a kaay na ko mën nañoo bañ a yegg foofu ndax soo am Wardini mooy favori maanaam moo ëpp sens ngir nekk maire bu Ndakaaru ah moo wutu woon Khalifa Sall ba pare farandoor Khalifa yu bëri moom lañ àndak waaye nag Moussa Sy gouvernement bi Macky ak moom lañ ngembu maanaam moom lañ àndal a ah seetal source ay yéen na ko li nga waxay dëgg ndax njiitire Macky Sall fa koo jaaree ci doomu Serigne Abdoul Aziz Sy ngir parrainer ne affaire bi kon ay mooy gàddu ndam la li ci kanam raw li gët si du quotidien moom di ñu xamal na société civile bi amal nañu ab ndaje waxtaan di woo politiciens yi ngir yàlla ñu toog waxtaan nguur gi ak ku jégi ngir ñu bañ a yee fitna ci wote yi di ñëw alintin ci laas yi ne kaay nee li tax ñu amal ndaje mi fa ñoo bëgg a fay bomb bi nar a kalaate ji ëllëg Jóob de Kura na ko rafetlu naa li ngeen def Moor Ngoom farandooru njiitire Macky Sall na Macky pare na ngir waxtaan ak ku Malaisie mi doon defar carte yi rawatina waa a kaay bi samp laaj na ngeen foog na loolu tontu ko na ko loolu de bokkutoon ci sama bëgg-bëgg waaye su fekkee yow loolu nga bëgg kon maa ngi lay ñaanal yàlla nga am ndam ci la ma dikke ñang jëlee ay bagaasam ñëpp ci Sénégal moo ñu ko xamal ne seen waxtaan wa nag Karim Wade fekkee wut ko woon Le Soleil yéen a kaay nag moom xëy am waxtaan ak Ismaïla Madior Fall jëwriñ ji dénk wàllu yoon ma ngay leeral Aline Badara Cissé ABC na ko gis nga yow mii xamoon ne mën nañ laa révoquer maanaam dàq kaj ji jëlee sa place a yaaw seetal ab a xam liggéeyam Alioune Badara Cissé nag fay jaxase pédale yi Serigne Diop nekkoon na fi médiateur ñu yor ko ci anam gu rafet am sutura waaye kii moom fay dugg ci lu yoonam newut man ma dugg ci njàng mi ak njàngale mi ngir wax leen li wal fajir yéen a kaay wax a yaaw seetal nee na école bii di tijji tijjee gut waaye nar naa taq suuf école yi war a jàngee mi ngi fees dell ak ndox jàngalekat yi ñu ngi nii di waaj na dañuy geraw bu nguur gi defut lam digga woon ak ñoom as yéen moom di ñu xamal na Cheikh Tidiane Sall wuutu na Bruno Diatta ca palaasu chef de protocole ca palais ba njiit réew Macky Sall moo jël dogal bi ni mel keneen ku jël dogal mooy préfet bu Ndakaaru tere na xaaye na sabar bi Pape Diouf bëggoon a organiser grand théâtre laa séen a ñu ko xamal tàggat yaram gaynde yu jigéen ya demoon ca coupe du ba ñëpp si nañu ndakaaru démb waaye kilifay réew mi fañ leen a rusloo kenn demu teeru ji leen wala ñu sargal leen moonte ay jàmbaar lañu libération moo ñu ko xamal record yéen a na ko njiital fédération basket bu Nigéria sax sargal na gayndey Sénégal yi na jàmbaar lañu ak yu Nigéria yi nga xam ne Amérique moo leen mbuqi ca quart de ba record yéen a kaay moom stade yéen a kaay na ko ma yokkal la ci gis nga week-end bi dendu Europe jongante yu neex a fa am aa yow seetal ginnaaw Chelsea Liverpool Real Madrid dana bal ak Atlético Madrid Juventus fay bal ak Naples Paris di bal ak Nice sunu lamb yéen a kaay di ñu xamal ne Modou am na ñetti promoteur yu ko fay ëmma seen waaye Modou Lo fa bañ li mu bañ mu dal Bombardier moom sunu làmb mooy li dal Tyson ak Yékini ci làmb ji maanaam niñ jeexalee lay ragal mu dal Bombardier li dal juróom-ñetti policier fii Sénégal mooy dugg ci wàllu ay forot ba ñu jàpp leen tëj leen ca kaso ga allah l'observateur moo ñu ko xamal ab police war a ku def forot ñii moom ñu tuumaal leen na fa ñoo def forot ba tëj leen kaso mu ngoog nag ka doon tëje kaso tëj nañ ko kaso